suñu cadre 15e édition festival. muy festival ba nga xamné da fay bolé li nga xamné moy art ak li nga xamné moy environnement voilà mo taxone ci même lancé bobu la ñu organiser woon ben formation tay ba nga xamné da fay ñeu appuyer juste ci moy projet de pollution baie de bi ñu am en même temps ñu accentuer ko woon surtout ci déchets yi nga xamné ñoy déchets liquides yi moy euh, eau usée yi nga xamné ñu koy déverser waat ci biir ndox mi voilà ñu organiser woon tay benn jour de formation ba nga xam dañuy jël ay leaders communautaires former leen pour ñu wàcc sur le terrain ci cadre festival bi def ay sensibilisation former ñi nga xamné ñom lañuy tuddé suba ay ambassadeurs ñi nekk ci biir dëkk bi pour ñoñu mëna former waat ñeneen wala ñu sensibiliser leen loolu mo nekkoon journée bi tay ñuy xaar ni au euh, respect yi nga xamné ne ñi moom lañ ci xawa ragal muy rester mesure surtout ci cadre Covid bi dina ci am mais ñuy xaar aussi que ni ci lancer bi ñu nekkoon moy appui bi ñu doon def muy sensibilisation bi ñu doon def surtout ci cadre commune bi ñu nekk muy commune Hann bel nit ñi nañu xaaraat foofu te xam ni même base yi nga xam ne moo fond moo nekkoon base festival moo ko nekkaat ba tey amul changement. dañuy wax chaque jour pour servir ci benn base wala ci benn milieu il faut à chaque fois ñu ñëw di apporter nit ñi li nga xam ne mooy moom mooy li ñu soxla te gis nañ ni cadre bi ñu nekk muy cadre Hann Bel-Air li ñu gën a soxla wala li fi actualité mooy tey suñu beeb yi nga xam ne gis nañ ni euh, ni mu nekkee neexut kenn maintenant VAD yi ñu war a wàcc sur le terrain ak ay volontaires ak ay communautaires ay VAD la ya nga xam ne dina permettre ñi nga xam ne ñooy def loolu parce que c'est c'est quelque chose nañ ko wax ba nga xam ne nit ñi ñoo ko def dinañ mën a am benn benn conscience bi ci li nga xam ne ñu ngi koy def ak lan la leen mën a jural ëllëg loolu moo taxoon ñu organiser VAD yi pour sensibiliser leen li ci gën a important mooy on a impliqué tout le monde bépp structure ba nga xam ne yaa ngi fi yaakaar naa sentir nga ci sa bopp te festival ak les frères Guissé invité nañ la à ce que nga mën a rendre service population bi ci cadre boobu tey dañ ñu woowoon maanaam pour partage la rek ndaxte expliquer nañ ñu euh, maanaam jaar jaaro Festi'Vert ak tamit ñoom lan la ñu bëgg bàjjenu gox yi jàppale leen ci sensibilisation ak euh, information loolu moo taxoon tey ñu ñëw ci loolu lañ doon waxtaan euh, waxtaan nañ fi nag lu jëm ci wàllu environnement waxtaan nañ fi lu jëm ci wàllu relais communautaire ndaxte ñom seen programme ren dañ ci dañoo xam ni projet de pollution baie de Hann lancé nañ ko ba pare mais buñ ko lancé ba pare loolu du jël déchets solides te it il faut tamit ñu am projet ba nga xamante ni moom moo fi jëlee mbalit mi nga xamante ni moo nekk ci biir dëkk bi loolu nak la ñuy def sensibilisation ànd ci ak relais communautaire yi ànd ci ak euh, euh, association étudiant yi dugg ci biir population bi expliquer leen waxtaan leen nan la ñu war a partager seen i mbalit mbalit bi nga xamante ni bu tooy bi ñu war a ber ak bi nga xamante ne ni dañ koo war a def maanaam bu fekkee tey dañoo am ñaari poli mbalit dangay def fii mbalit bu wow bi jël fii mbalit bu tooy bi ber ko te loolu pour population yi xam ko faaw nga wax leen ko ndax amuñu habitude jël ay ay ay ay mbalit di ko ber comme boo ñëwee bëgg leen ko euh, def loon nag faaw nga expliquer leen nan lañ koy defee ba pare so leen ko expliquer nak ba pare nak ñom ñu man ko defal seen bop mais ñu xey xey rek ñu def xam xamuñu ko motax da nga leen koy expliquer ba pare expliquer leen tamit mbalit bu toy bi lan moy njëriñam ak mbalit bu wow bi lan moy njëriñam ndax mbalit yi amul benn bo xamanteni bu ñuy tour la bu amul njëriñ amu ci mbalit yépp am na njëriñ ci loolu lan lañ doon waxtaane tey ci loolu lañ doon def atelier daal ku nekk di indi sa euh, sa sa sa xalaat relais communautaire yi tamit indi seen xalaat ñoom tam bu ñu demee sur le terrain nañ la war a comporté woo ak population yi ak buñ duggee ci biir ménage yi ñu fay fekk nañ leen leen fay fekkeek yooyu ci loolu lañ doon waxtaan tey. di ci am mbégte bu baax a baax ci atelier bi nga xamante nii wax dëgg yàlla donc waa Festivert euh, ñi ngi koy doxal. yàgg na ñuy dox ci lu mel ni donc euh, bu ñu ñëwee tey fekk ci saal bi vraiment ay ndaw ñëpp jóg takk seen ndigg ngir lépp loo xamante ni luy jëmale alam ji kanam la wax dëgg yàlla mbégte la ak bànneex donc euh, yoon la tamit ñu ñëw tamit en tant que partenaire ñu participer ci and ak suñuy rakk and ak suñuy jabaat gunge leen mën leen tek ci yoon bañu baña bañ a am benn gàllankoor ndax euh, lepp luy jëmele alam ji kanam rek loolu mom mo leen te yaakar na ni euh, ak euh, moment bi nga xamanteni ni bi jot nañ ko dundu muy ci walum covid bi yaakar na ni lepp lo xamanteni tay alam ji laaj nako rek nit ñi war nañ ci baye xel ngir delo ko dañ ci profito remercier bu baax euh, le ministre de l'environnement Abdou Karim Sall ndax euh, dox na ci ay jéego yu am solo jéego yim ci dox parce que fekkoon na fi plastique bi donc ñu amone loi bo xamanteni xawon nako teunk mais dafa amone djixi jaxa ci walu mbous bi lañu wara jël ak buñu warta jël mais bi yalla dogalé moom mu ñew vraiment ñu continuer combat bi bañ dem ba nga xamante ni amatul benn plastique boo xamante ni dinañ ko méngaleeg beneen bi yëpp lañ ci boole muy bouteille bi muy goble bi muy sachet ndox beeg yëpp donc loolu dañ ko ci euh, félicité ci taxawaay boobu mu am donc li ci des nag mooy ñun en tant que consommateur ñun en tant que citoyen donc ñun ñoo war a xoolaat li nga xamante ni donc moom la ñu mbuus yàqal donc euh, soo xoolee vers les années Euh, vingt mën naa ni 80 jusqu'à présent donc li ñu mbuus yàqal donc ñun ci suñu bopp ñun ñoo war a xam ni mbuus jëmewuñu fenn plastique jëmewuñu fenn dul yàq suñu wér-gu-yaram yàq suñu cadre de vie ba pare lépp loo xamante ni njëriñ la woon ci aalam ji wala ci géej gi donc mbuus dafa jóg commencé di ko nasaxal kon nag du loi am na donc ñi ngi koy dox wala doxuñu ko ñi ngi ci dox ay jéego ñun ci suñu bopp war nañoo bàyyi xel au moins ci loolu nga xamante ni ñun ñooy dem ci boutique yi di ko jël ñun ñooy dem ci magasin yi di ko jël préparer sunu bopp ba bu ëllëgee buñ ñu ko joxee ñu bañ koo jël parce que li ñu lay jox jëloo ko rek bu yàggee ki la koy jox dootu la ko jox mais tant que ñoom ñi ngi am possibilité di ñu ko jox ñu di ko jël ñu di ko defar donc loolu tey yaakaar naa ni problème yu bari tey jii loolu moom moo ko indi ci biir Sénégal donc euh, di ci ñaax nit ñi rek donc euh, nañu bàyyi xel bu baax a baax ne wér dafa jafe ku ne xam na ni plastique cancer la lay jox problème euh, maladie respiratoire problème mu asthme yooyu yëpp dafa nekk ay feebar yoo xamante nii yëpp dafay jóge ci wàllum plastique parce que mbalit la mu ñuy jël di ko toggaat mbalit mu ñuy jël di ko toggaat nag yaakaar naa ni bu buñ ci defee lekk di la ko jox war ngaa xam ni kii yéenewul a jàmm kon ñun ñoo war a jël sunu responsabilité ginnaaw yàlla dimbali nañu ba am nañu vraiment loi bi nga xamante ni jàpp nañ ni moo gën ci àdduna kon li ci des mooy ñun en tant que citoyen en tant que population ñu delloo euh, buum ca mboy mboy ga fexe ba la mam doon dundee démb ak bërki démb même bu ñu mënul lépp it li ci ëpp doole ñu def taxawaayu frère Guissé vraiment alam ji ci boppam wala képp kuy yëngu ci alam gi rek war nga leen a delloo njukkal parce que dafa doon liggéey yombul parce que mbirum alam ji saa boo ci di ci yëngu nit ñi duñ la considérer comme doomu adam, dañ lay tek ko matadi te li ngay daw suba ba ngoon jot lepp pour seen jamm la ngir nit ñi mëna nekk ci jamm am wër ki yaram lool nak pour ñu mën ci réussir du def lu dul delloo leen jukkal di leen wax ne leen nak aduna mo tuddé non comme euh, ni ko mag ñi di bax wax mag ñu bax ñi di waxé rek des fois doomu aadama balaa ñu lay xam balaa ñu Sénégal balaa ñu lay xam sax nga génn aduna bo génné aduna ku nekk ñew nangam ak nangam di expliquer donc loolu yaakaar naa ne tey loolu lañu bëgg mu jóge fi ba nga xamante ni bépp doomu aadama bu am njëriñ ci biir réewam war nañ ko mën a ràññee jël ko teg ko ci kaw ba mu doon référence ba surtout koo xamante ni vraiment seen yéene yëpp mooy nu ñuy def ba alam ji ñoom nan la ñuy def ba géej gi set nan la ñuy def ba mbedd yi kenn dootul gis mbalit kon lu mel noonu bu ko ay doomu réew mi di ko dox di ci wax lu tolloog ñaar fukki at ak juróom wax dëgg yàlla jot na tey jii fi mu nekk nii Euh, Festivert daanaka tey citoyens yi ñoo waroon a jël organiser ko maanaam delloo leen njukkal. lépp loo xamante ni formation la capacitation la njariñ la te li ma ci fekkee mooy ay xale ñoo ci ëppoon ak ay jigéen mooy yaay yi ñoo fi nekkoon ak doom yi alors pour ñu leen di wax lan mooy seen environnement euh, parc de Hann bii ñu nekk cadre de vie la.

Nous ñooy la concertation des riverains donc euh, ñu une association yëpp frère Guissé s'est ci alors y def nag festivaire bi moo crap crap dans euh, daanaka ci décembre bi lay am un an alors donc frère Guissé yi wooñu pour nous, ñu avec nous euh, andi suñu participation participation bi nag ñoom ñoo ñuy définiral conditions yi li am solo nag moy sensibilisation de conscientisation jëm ci baie de donc ñun eh, dañ koy taxawé eh, ci fan yi ak ci bis yi ak ci bis bi nga xamante également ci la di xew donc lancer un plaidoyer surtout sur la baie de Hann eh, dinañu dépolier la qualité des eaux moy ndox mi lañuy ségal alors mais bu ñu seggee ndox mi nit ñi dañ mëna a ci géej gi fonction économique gu ji tamit jën ñi leen déllu ci wat donc dina natat mais bu nit ñi mëna sangu géej ji nat mais également am nañu benn problème te loolu plaidoyer la bu waa CRAP di porté ndax CRAP nag mooy la voix de Hann alors muy un test démocratique euh, ànd ko ak suñu commune ànd ko ak les partenaires techniques et financiers ànd ko ak le représentant de l'État muy ONAS qui est maître d'ouvrage ensemble ñu ànd ko pour mën a laaj li ñuy wax euh, les déchets solides waaw mooy euh, lépp loo xamante ni bu ñu day jógee ci géej gi ak ci nit ñi donc pollution domestique bi ñu sét nan lañuy fexé fexe ak autorité yi ba ñu am lu koy sétal moy bu géej gi sété nag jor gi sét ba nga xamanteni légui dañuy am benn géej go xamanteni ni dëgg-dëgg ni ndox mi sété ñu ségg ko mu baax non la jor gi di rafété ba nit ñi man fi def seen pique-nique def fi seen sport mais également ñu war fa mën am ay restaurant am fi ay banque mais am fi ay voilà en TV sax war fa mën am benn espace am bo xamanteni voilà fa défé defee journal am voilà yu mel noonu géej gi dal naataat euh, mais pour waa dëkk bi tamit wax dëgg am ñu gis ci suñu frère Gissé, nous avons organisé euh, pour la 15e ou 16e fois. Euh, C'est un euh, festival, bien ramené aussi de faire que euh, la tribune, offrir vraiment n'est plus nous l'environnement, l'assainissement, le bref développement durable pour nous échanger, échanger notre expérience c'est du pêcheur pratiquement au docteur d'état ou bien à l'agrégé mais aussi da ngay gis expérience muy partage riche cette année aussi ñu innové Nous nañu dit di ça va venir mais nous ñu def innovation innovation parce que la suite euh, du lancement du projet de dépollution de la Belle Anne, li nga aussi remercier État du Sénégal pour nous avoir vraiment offert cela après un excellent projet sur la restructuration Nous l'Union aussi tey dañuy def projet de dépollution de la baie de lancement mais lancement avant de lancer nous aussi en tant que spécialiste de la question et en tant que maire nous nañu alerter len attirer son attention si lan si effectivement déchets liquides avec le projet bi jël projet bi nak di jël déchets liquides ñun citoyen lambda bi projet de dafa des lu bari parce que depuis 2002 nous avons programme bu programme de réhabilitation de la baie de moi mon vite volets le premier volet c'était d'abord la restructuration des quartiers traditionnels deuxième volet c'est la dépollution dépollution bi effectivement assainissement extrêmement important parce que le les zones les zones ba bi ngay entreprise de part et d'autre 60 mètres bu aussi vraiment connecté pour que vraiment déchets soient yëpp ñu dem parce que les aussi canaux non seulement c'est des canaux à ciel ouvert mais amna ay canaux yu nga xam ne si même bu ñu leen tëjee dañuy charrier beaucoup de d'ordures su ñu demee ba canaux yoy ñu connecté len ci ci intercepteur petit diamètre bi vraiment dina am solo trop mais ñun ñu nga xam ne si dañu dëkk yaraax té géomorphologie mooy kiwu euh, ki bi forme baie de bi dafa nek cul-de-sac mu nek mu melne ben benn bi nga xam ne si rek da ngay japp ay jën dugal len ci biir nous avons des jógee de dal échoir si donc loolu aussi am qui kila mais na yu population bi population locale bi donc yoy ñun tank que on a comme l'impression que projet bi des donc loolu qui vraiment les frères c'est dans le cadre festival nous def un très bon maillage géographique Loko qui est la hiérarchie, Montagne vraiment je tiens au nom de la mairie, au nom de monsieur le maire, à mon nom personnel, vraiment de remercier vivement et très chaleureusement D'y inviter vraiment lii et liggéey nit ñi surtout ñi ñu gën a jën ay xale ak jigéen parce que bu ñu c'est pour la formation bu ñu jeunes, c'est parce que ñoom ñooy ñooy yóbbu mbalit mi ñooy génne et de respect de remercier aussi à UCG avec. Euh, les programmes euh, les programmes normalisés là yu nga xam si moy sen dépôt yu def ci dëkk bi nga xam si partout boo ko c'est vraiment ça camp le décor c'est extrêmement important mais dal vraiment formation bu ñu def tay pour vraiment booru geej bi moi je pense bien que ce n'est rien d'autre qu'un plaidoyer pour attirer l'attention des autorités que projet bi baxna mais mëna gëna bax nous avons financement comme nous avons fait en 2006 avec le président Abdoulaye Wade que nous remercions ñaanal au passage parce que non seulement 2006 il indi un projet avec son environnement mais 2009 c'était lui qui avait trouvé les premiers financements les 33 les fameux 33 milliards qui sont tellement augmentés qu'aujourd'hui on est à 79 milliards sinon on arrivera à 120 milliards mais l'essentiel est que quel que soit le coût quel que soit le montant nous interpellons vraiment les autorités étatiques euh, après les avoir vivement et chaleureusement remerciés, mais de faire tout pour qu'on puisse avoir un projet relatif à la gestion des déchets solides quoi véritablement mon problème bi quoi Comme frère plaidoyer c'est une organisation qui est bien connue et qui est très respectée à travers le à travers le monde mais surtout sur le plan national et au niveau local et je pense bien que la fameuse sirée dont chantait vraiment allègrement notre ami cher. Je pense bien que où était son domaine de production ce n'était nulle part ailleurs à Dakar, mais sinon la baie de Donc baie de Anne, bu nga frère Guissé organisé moi je pense bien que c'est la l'acte def pour nous sensibiliser. Encore une fois merci les frères Guissé ce n'est pas une première depuis plus de 30 ans ils sont battus corps et âme pour faire de la baie une baie restaurée, une baie rétablie, une baie fleurie, une baie qui retrouve vraiment son lustre d'antan, avec les activités commerciales, les activités touristiques, les activités ludiques, non pour ne pas dire les activités purement sportives, parce que football opéré, c'est ce que je